di commencer ci bismillahirrahmanirrahim aussi di sante suñu ñaan waju tamit di sante euh, wa Pikine ak ñi xam tay ne and ak PM Sall di liggey di sante wa Ngéyeen ak wa Fissel Mbaadaan. Euh, PM Sall mm, c'est un jeune leader yor un mouvement de Pikine Ouest aussi di piloter ci mouvement bi di def ay œuvre yu bari ci bi mouvement bi aussi. Mhm. nek un jeune engagé tamit avec son mouvement décalé Dekkal Yaakaar Pikine. Mhm. Mhm. pourquoi dekkal yaakaar Pikine ndax bu ñu déggee dekkal yaakaar day mel ni yaakaar dafa tas. waaw effectivement mën nañu wax yaakaar dafa tas parce que soo xoolee euh, le fait que PM Sall ak waa mouvement ñu mu àndal jug taxaw temm porté maanaam combat boobu pour dekkalaat yaakaar bi aussi parce que depuis bu ñu nekk xale depuis à bas âge maanaam dañu yàggoon a gis ñi nga xamante ji maanaam doon def ci wàllum politique ci wàllum développement aussi en fait ñi ànd ak suñuy wéyjur xam nga booba léegi nag bon ñu dem ba màgg am conscience tranquille ñu taxaw temm récupérer flambeau bi gérer ko suñu loxo pour dekkal yaakaar bi bu tasoon bu ñu daal koy indil jokkoo maanaam ñu nga xam tey ñooy dëkkuwaay euh, Pikine Ouest. Hmm. Mhm. pour yow ñun ñoo tasoon yaakaar gi. ba nga bëgg ko dekkalaat. Euh, ñu tasoon yaakaar bi en fait euh, bëri woon na aussi bëri woon na hmm. mais ce qui importe le plus tey jii ce qui importe le plus tey jii euh, sen dom PM Sall euh, ñëw na fi euh, té flambeau bi pour déclarer yakar bi aussi. ok est-ce que mën nañu xam objectif mouvement Dekkal yakar bobu la mooy objectif am. Ah, mouvement bi objectif bi bari na xamna ni ci cité quelque rek. Mhm. bi si njëkk mooy social. Mhm. jappalé askan wi manam mhm. dem seet seeti askan wi xol ci lu ñu nekk ñu daal leen di taxaw aussi. Euh, benen bi moy euh, manam si un emploi emploi ndaw ñi nga emploi ñu ngi ak PM euh, di aussi ñu de telle sorte que manam ndaw un am lu chômage parce que qui un di emploi wax chômage naka la aussi. tamit ki di emploi la formation il faut qu'on forme les gens d'abord avant qu'il y ait d'abord de l'emploi ce qui est sax dem des fois suñu génnee ànd ak sama gars yi laa leen expliqué suñu toog ak ñeneen man bu leen ma jox dara mais ñu ma àndal aussi nañ fexee am d' abord kon donc loolu bokk na si maanaam euh, social emploi aussi ak euh, dox si wàllu maanaam euh, l'insécurité ñu xool naka lay demee naka lay dañee fi nga xamante ni moom mooy si commune bi d' accord ñu gis la sa alliance ak Cheikh Ahmed Tidiane Thiam mhm. pourquoi lu tax waaw Cheikh Ahmed en fait loolu dama si sawar wax suñu bari bëri. Hmm. suñu alliance aussi parce que tey jii wax nañ ko ah, dañ yàggoon a liggéey si mouvement PMSA di promouvoir di promouvoir di promouvoir ba actuellement amoon nañ manam capacité. Hmm. manam pour dem les élections locales déposer ñu suñu propre candidature ñu wax PMSA la aussi. Hmm. parce que nous avons travaillé à ça. de telle sorte que manam on a massifié pas mal de personnes ñom xam tey jii maanaam ngi ci mouvement PMSA mënu ma leen lim. bon ñu bëggoon dem vers les élections locales après par la kan suite comme ko ñu dañu am ay kilifa. am ñi ñuy conseillé ñu ne PM comme que yéen a ngi soog a dugg si politique aussi da si baax maanaam ngeen dem xool ka nga xamante ne maanaam am na doole. am na potentiel. bokk ngeen même idéologie aussi si politique. ngeen def maanaam coalition seen doole ak dooleem su ko defee maanaam ngeen dem jël euh, municipalité pour ngeen xam la may municipalité ni muy doxee pour ëllëg. boo ñu xam ne loolu c'est raisonnable. am mhm. ñoom allié wu quoi. donc kon alliance boobu dafa tegu rek ci dangeen gis ne yéen ak Cheikh Ahmed Tidiane Thiam vous conjuguez sur la même longueur d'onde. sur la même longueur d'onde. Mhm. non sur la même longueur non seulement aussi euh, sur la même longueur mais euh, dafa nekk ni ki nga xam tey jii maanaam euh, lu mu jox si emploi dafa bëri. Mhm. gin diir bu mu ñëwee si milieu politique Pikine Ouest. amul kenn ki nga xamante ji maanaam baat na ko si wàllum emploi. tout récemment eh, forum bu amoon fii arène nationale aussi si l'employabilité de, de, de de la banlieue aussi. def na si lu am solo. def na lu am solo. waaw ah, kon donc tey jii eh, loolu su ko Cheikh Ahmed su koy def gis keneen ku koy def si wàllum emploi kon donc yaakaar naa ne maanaam eh, idéologie dafay nekk lu lu lu merci benn. Hmm. c'est ça c'est ça c'est ça ak yeneen ak yeneen mais xam naa après si biir dina si gën a xóotal gën a expliquer. mbir yi aussi. d'accord accord lan mooy indi woon nga annuler sa rencontre yow ak Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. Euh, en fait euh, bon depuis bu ñu officialiser li nga xamante yi moom mooy suñu rencontre ak Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. est ce que ñi ni seetaan mënuñu xam ñaar euh, temps bi nga xam ne officialiser nga yéen ak seen diggante Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. c' est à dire temps bi maanaam. kañ kañ ngeen lëkkaloo. ah lëkkaloo bi bon ma tagul sax maanaam juróomi weer. mais depuis alliance bi ñu amee bu ñu ko officialisé coow li mm. bëri na. ok parce que wax naa ko wax naa ko Cheikh Ahmed wax ko ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi si biir commune bi que maanaam PM rek mu ne leen bar. Mm-hmm. biir biir biir biir Pikine mais de ce le fait mu dem Cheikh Ahmed dafa am lu tax. d'accord dafa léegi rencontre boobu noonu aussi comme que en fait bon am am amoon nañu benn officialisation ñu waroon ko woo. Mm. waxtaan ak ak mouvement PM la section féminine PM Sall muy jigéen yi xam tey jii ñoo ngi ànd ak PM Sall di liggéey. ngi def lu am solo si biir commune bi aussi. c'est yàlla lu am solo. après ah par la suite bu ñu defee rencontre bi ñu Cheikh Ahmed waroon ñëw par yàlla def euh, Samba Sarr. daal di daal daal di génn àdduna ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yërëm te jégal ko taxaar àjjana firdawsi mhm. Mhm. di profité waale aussi di jaale waale mut saw papam nga xam ne moo génn àdduna barke démb di ko ñaanal mhm. moo taxoon ñu annulé woon rencontre parce que en fait dafa nekk icône biir Pikine nekkoon ku nga xam ne tey ji maanaam dafa représenté lu rëy biir Pikine rawatina Sénégal kon donc tey ji en fait mënuñu woon def dara euh, si période boobu noonu période période décès bi. Euh, ñu ñu kii moo taxoon ñu wàcce woon lépp bàyyi ko suuf ndax décès bi aussi. parce que Samba ak Cheikh Ahmed ay xarit lañu woon. Samba ak PM Sall ay xarit lañu woon. Samba lu ñu doon déggante daanaka moo ëppoon nii li ma li may li déggante Cheikh Ahmed. saa suñu déggante ak maag Samba Sarr may wax ay wax yu rafet di ma conseiller di ma teg ay bagages yoo xam ne dama ko teg si yoon. loolu moo taxoon yàlla annulé woon maanaam suñu rencontre bi. Mhm. mais euh, je pense que d'ici en fait ce n'était pas une annulation. mais c'était juste madame, de nous reporter. ultérieurement. ok annulé lu mhm. mais report report reporter. donc d'ici très peu de temps Inch'Allah, Rabbi, mhm. mhm. ak xam ak mouvement bi. di mu objectif ak suñu objectif mais il faut que rassurer. fu dem. man maanaam euh, dal na suñu xel si kàttanu yàlla. mais ñu ngi doon xaar ci PM Sall mu déposé candidature ci mairie Pikine Ouest. waaw wax naa ko léegi léegi euh, PM Sall liggéey na de telle sorte que li nga xam tey jii maanaam war na war na war na ko yóbbu si biir commune parce que PM non seulement fi la juddoo Pikine bi xam lu fiy dox mu porte ndaw ñi. Mhm. muy dugg si li nga xam tey jii maanaam ñoom lañu jàppee ils sont ils sont marginalisés PM Sall ak ñoom. Mhm. il faut comprendre PM maanaam gi nga couche boobu noonu di ko di ko di def porte à porte donc tey euh, on a nañu euh, potentiel actuellement on a un potentiel jusqu'à preuve du a am potentiel pour déposer euh, manam li nga xam tey jii élection locale mais on a la ko léegi la am ay c'est pas PM Sall seulement qui est là qui travaille non mais derrière PM Sall y a des gens ici c'est des têtes en fait nous n'avons pas besoin des en fait comment des des des des doctorats mm-hmm. non mais ce que nous avons besoin actuellement c'est des leaderships ce que nous avons besoin c'est des entrepreneurs ci olof maanaam li ñu soxla mooy tey jii soxla wuñ mu ngi mu am soxla wuñ ñu nga xam tey jii maanaam euh, en fait dañu jàng ba kale am ay doctorat non non li ñu mooy ñi nga xam tey jii maanaam dañuy faram-fàcce mbir yi. <laughs> xool PM lii soo ko tegee maanaam euh, daf lay jëmale kanam ñu loolu ñu soxla. Hmm. moo tax tey jii PM Sall kus boobu nag dafa dafa fonk. li nga xam tey jii maanaam ñoom dañu leen jàppee euh, marginalisé li ñu teg à hmm. ñooñu nag xam xamante ne PM Sall loolu moo taxoon tey jii ñu doon dem déposé kon ba tay mën nañu xaar sa candidature. non actuellement sama candidature non dama nan non. lu tax parce que dañu aliyo ak Cheikh Ahmed te Cheikh Ahmed di nga koy fal inshallah warabi d'accord te fi la laa la PM dugg na dina am ay yenen ak yenen yeneni ponk lu ñu xam dañuy dugaat. daf benn bloc jappal ci Cheikh Ahmed fal ko si kàttanu yàlla. d'accord PM Sall rek mo mën na fal Cheikh Ahmed. cheikh seede yalla mhm. mais euh, nit ki so gëti lu baax. du ci téla dem ba jeex tax. fu mhm. ñi la ñi la. naka nga gisee gestion maire bi fi nekk ni Le positif la wala position bu ah, négative médiocre médiocre Hmm? non je vois pas la bon ce qui est ce qui est positif dedans gisuma le positif quoi. sept ans mu nekk di liggéey nga euh, bon peut être. C'est médiocre quoi C'est médiocre effectivement C'est parce que en fait c' est lu ñu li nga xamante ne maanaam gis positif. maanaam gis nañ ko le, mm-hmm. lu positif son son son son son bilan est médiocre. Mm-hmm. waaw donc tey jii euh, en fait. Euh, peut être mën na nekk si benn si benn benn coin bu ndaw dafa def li nga xam tey ji maanaam euh, mën nañ ko defalu mais de manière générale de manière communale mhm. maanaam son bilan est médiocre mhm. tey boo amoon di ko noté loo koy noté euh, la fa la fa passé defoon naa benn émission noté joxoon naa ko euh, je pense trois sur je sais pas sept sur dix mais cette fois ci dama koy yóbbu ba trois trois sur dix parce que bilan chaque chaque chaque de temps en temps dafay dafay dafay dafay dafay abaissé day wàcce kon son son bilan est médiocre. ñun ñu nga xam xamante tey ji maanaam nekkuñ dara si mairie bi ki si mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Thiam ki si mel ni PM Sall ki si mel ni keneen ak keneen ki si mel ni ñoom Yatanza ñoom El Hadj ñoom Adama ñoom Pafal ñi nga xamante ni maanaam ñu ngi si biir commune bi di def li nga xam ne de telle sorte que maanaam euh, gars ñu ci teg seen bët di si apprécier te nekkuñ si mairie bi kon donc tey ji ñoom suñ suñu demee ba nekk si mairie bi kon nu mhm. kon donc ce yi politique ñaar la politique ñaar la ci aduna soit secret bi ngay xam nga tok nopp wàll do def dara. secret bi nga xam nga di ko divulguer politiquement. dans la positivité. gars yi di gis. que bi di ko maanaam ñi nga nekkal yaay téye seen flambeau bi yaay nekk sen porte de voix di leen xamal ne carrément ñi di ñi naxe ñi mënuñu. kon donc effet bi c'est ça en quelque sorte quoi. ok kon nga gis ne dal maire bi ak bi ak équipe municipale bi fi nekk ni ñom dañuy dañuy def ni dañuy nax nit ñi di leen lëre mais liggéey mom amu fi président Macky Sall dafa jël ay milliards indi jox ñu war a def lu ñu def ana loolu ana ana milliards yi on ne le voit pas tout récemment y a l'inondation y a l'école qui est à côté. y a l'école qui est à côté la pluie va s'installer l'eau va va va va s'installer là-bas à l'école euh, si yàgg dafay créer nga xam des des maanaam des bactéries et il y a des nos enfants qui sont là-bas à l'école une fois en contamination avec ces avec avec ces microbes. di nga indi si kër ñi daal kay maanaam. Euh, comment dirais je euh, propager si kër mu créer des des certaines maladies aussi. kon donc tey jii euh, en fait président Macky Sall lu mu mënoon def def na ko mais ñi nga xam tey ji ñoo nekk si localité yi ñoo deful suñu liggéey rawatina fi nga xam tey moom mooy Pikine Ouest. ñu ñu gis bu yàggul préfet ñëw fii. mais mhm. gisuñu benn autorité bu génn ban jàngat gi. ci waaw parce que en fait ndeysaan xam tey jii. soo toogee li yàgg seere yàlla soo toogee li yàgg maanaam xiif xiif xiif xiif xiif ngi jékki-jékki seen gis ñu gis seen benn doom taxaw té té teel a drapeau ñoo automatiquement préfet bi muy ñëw dama nekkoon sama sama kër don waja bon liggéey dafa ndékki mhm. ñu woma tak ñu ne PM le préfet est là et en fait avec avec avec le directeur de de l'ONAS tout ça mhm. bon automatiquement ndékki no la no la ko tegi ndékkiwuma ko parce que man Pikine dafa ma jaral lolu mhm. population Pikine dafa ma jaral lolu ma génn moom autorité la man autorité là aussi comme ñom parce que on m'a appelé je suis le représentant de cette localité aussi pour certaines pour toute une localité aussi on m'a appelé en fait j'ai côtoyé le préfet xamal nako carrément euh, lii préfet yéen vous êtes les démembrements de l'État dans les localités aussi tay ji wax bi suñ suñ leen ko raayee doo leen xam kon da ngeen da ngeen dem rencontre rencontre contre président donc tay ji dama ñëw faire wax ne carrément gi ndox bi ni ndox bi ni la mako war mooy manque d'inondation li yag yàgg di jooy si technopole fi nga cité moderne la manque di manque d'inondation comment se fait-il que madame un tel projet un tel projet de pavage Promoville président président Macky Sall Promoville waay def na ci liggéeyam bu am solo mm. mais comment se fait-il que madame milliard boobu non yëpp tey jii pavage am sans pour qu'il y ait pas de de de l'assainissement mais mais mais mais mais ça c'est inadmissible assainissement tey mo mo waral inondation école de di ok cité yi nekk si ma kër yi nekk si biir technopole di di jooy. Mhm. boobu léegi ñu ngi jooy toog seen maanaam garder seen dignité. Mhm. mais y a des bonnes volontés qui sont là-bas di yëgal seen propre moyen di jël seen di jël seen du pompe ndox bi mais où est la mairie. donc la mairie a failli à sa mission. il a failli à sa mission quand même il n'a rien fait du tout où la mairie. Mhm. tey ji PM Sall moo ñëw di dox si yooyu. est yaa ngi ci am ay résultats. bu baax. ci lu mel nan. bon tey jii en fait. Euh, après loolu dama joxoon benn ultimatum maanaam benn durée euh, en fait lii suñ ko de d'ici peut-être très peu de temps man avec avec avec avec les gars ñu télé bi ci ñu brûler mais dafa am toujours am PM loolu solution bu leen bu mais ñu ñu solution après le lendemain ndeysaan il m'a appelé le matin vers 8 h na est-ce gars mu ne ko Samba gars yi ñu ne waa ONAS ñu ngi ñu ngi ñu ngi évacuer eau bi ndox yi ci sàmm ci Samba Sarr dafa en fait dafa am lu rôle bu bu bu bu am solo bu mu joué si biir Pikine loolu il faut que waa Pikine xam loolu d'accord mu créé woon benn benn benn groupe tuddee ko maanaam Corona comité veille de Pikine Ouest c'est Samba moo ko initié il la l'initiateur moo ko créé maanaam duñ massifier di indi teg teg teg teg teg moom moo nekkoon le premier soldat bi nga xam tey dañoo xeex coronavirus bir Pikine Ouest c'est à Samb c'est sambassar Sarr tey jii mu boole fu ñëpp tënk leen ci ben akhlu ba pare dem dem dem dem dem dem génn àdduna parce que il a accompli sa mission il a accompli sa mission donc sambassar il m'a appelé na ma PM est ce que waa ONAS ñëw ma ne ko nañ mais tey jii mbir suñ ci def si amul suivi si amul des mesures d'accompagnement toujours ça va répercuter dafay ñëwaat dafay ñëwaat dafay ñëwaat te loolu ñun dañoo war a dépasser loolu inondation dafa war a jeex ci Sénégal parce que tey jii président Macky Sall wax naa ko dafa génn il a développé des milliards et des milliards li mhm. nga xam ne nekk lu ndaw daal koy tas ci biir localité yi ci biir Sénégal mais xaalis boobu noonu tey jii maanaam nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko en fait nañ ci def lu war ok tey lan lañ mën a xaar ci PM Sall ak Cheikh Ahmed Tidiane bés bu ñu yoree mairie bi pour un Pikine meilleur lan ngeen di indi seen askan ci lu mel nan comment dirais-je avant avant avant sax avant loolu tout avant loolu rek euh, may may xóotal tout sama yàggul Cheikh Ahmed Tidiane Thiam euh, am na benn benn jaaka wax naa ko day def social. Mhm. dama ne gazelle benn jaaka see Ahmed Tidiane euh, Diop je mu daal fay mu daal fay indi camion pavage. daal daal defaraat jàkka ji aussi. defaraat jàkka ji tout récemment tamit moo nii. Mhm. indi na si ay ay si wàllum employabilité tout tout ça. Mhm. ak moto pompe yi fan yi paase motugul sax 3 jours. sax amit tiyantaan indi na si ay conteneurs ji des conteneurs pour la commune de Pikine Ouest. waxuma la ay camions camions moto pompe de des conteneurs yi nga xam tey jii maanaam tey jii sax euh, amit da ko fi indi pour le bien-être de cette population. Mhm. Mhm. kon donc tey jii PM Sall si loolu la gis nee na nee naa la ñun waa ñun waa le mouvement PM Sall ñun mouvement bi ak bi en fait duñ dem si kenn di sikki sàkk naan lii dafa ñuul wala dafa weex wala lii dafa xaw ñuul wala dafa non non ci ci ñuy dem ci ñuy dem ci diw un leader di dem avec li nga xamante ne maanaam les idéologies qu'il a ok les œuvres qu'il a qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est en train de mener dans cette localité mhm. mu méngoo ñun moo tax ñu daal relier su moom kon donc lui c'est c'est c'est c'est l'homme l'idéal mhm. lui en fait euh, li may wax rek il n'est pas un chauffeur mais il est il est un un conducteur ok un conducteur donc c'est votre image en symétrie quoi

suñu wàcceeg guddi la lendemain balaa ñuy liggéey aussi ñoo ngi demaat def porte à porte mhm. parce que soo xoolee sa euh, fait ça ma dugg sax cinq cinq mais dugg nañ si gox bi plus de cinq jours en ah, mhm. de euh, je pense quatre-vingt-dix-sept maisons yi nga xam te ñu si commune bi dugg nañ fa di leen recensé di leen asaka mhm. di leen kii ñu dem bindu ju si wàllum sensibilisation si wàllum porte à porte en kon donc ce qui nee naa ko maanaam na xelam dal parce que ñun li ñuy def li ñuy def sur le terrain moo ëpp solo que li yi di gis li gars li yi di wax Cheikh Ahmed dafa am lu ñu jàng mooy loyabilité. ok il faut être loyal dans la vie. Mhm. ok laaj naa la léegi ne la seen yorin bis bu leen yàlla fale yàlla dogaloon ngeen faloo. Mhm. da nga yem rek ci un Pikine meilleur. mais xawoo ci xaw a dugg ko. nga compal ñu tuuti pour say partisans ak seeni i ñoñ. Ah. xam na kat ñun lii lañ mën a xaar ci ñii. mais un Pikine meilleur dafa vague de. Euh, PM Sall un Pikine wax naa wax na wax naa ko léegi sànq. waaw mais nag da ngay ñëw nit ah, tey jii en fait euh, su fekkee PM Sall rek naanaam maanaam moom en fait Pikine meilleur sax maanaam moom garaawul mais ñi xam ne ñoo wër. ak lu Sall. ñoom nañ ci sant seen bopp nañ ci bénéficié wu. ok ñan ñooy seen priorité bu boobaa. jeunesse bi la wala diggu doom yi la wala. waaw c'est la jeunesse xam nga tamit c'est la jeunesse d'abord parce que une que ñu kale ndaw ñi chômage day wàññeeku. Mhm. une fois que ñu kale ndaw ñi chômage su wàññeekoo euh, l'insécurité. Mhm. l'insécurité dafay wàññeeku du mën a Pikine am na insécurité non non parce que gars yi gars ñu ma lay expliquer nii damay waaj chaque jour balaa ba 4 heures du matin damay nekk gars yi nga xam tey ji maanaam en fait dina leen yaakaar ne leen marginalisé di ñu toog di ñu ñëw di wax. di di ma jooy seen seen seen seen ne PM population bi gars yi di ñu ragal ma la non non instant bi ñun tey ji ñoo taxaw thème pour di leen représenté kon donc ñoom ñi nga xam di ñoom ñoo koy def mhm. mais ñi nga xam tey ji dañuy jóge ailleurs di ñëw mhm. mhm. y a des technocrates Pikine y a des en fait y a dox si lu baax di si def. kon donc euh, priorité bu primordiale c'est la jeunesse d'abord. ok c'est la jeunesse. d'accord su ñu fa jógee ñi euh, encadré maanaam euh, cadrer les les femmes. Mhm. parce que ñoom tamit ñu am ñu ñu ñu ñu ñu ñu femmes yi nekk maanaam ñi nga xam tey dañoo am elles sont braves plutôt. ok elles sont braves dañuy liggéey guddeeg bëccëg. taalal ñu kenn seen loxo aussi. Mhm. ñoom tamit bokk nañ ci les priorités. primordial. d'accord mhm. ok naka nga gisee violence yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci wàllu commission yi ñu koy dégg ci ay gox goxaat dégg ko fii ak feneen lan nga ci sànne pour man loolu amul solo lu am solo mooy la carte mhm. la carte qui important mhm. tey jii mën naa la wax PM am na mouvement PM am na am na plus de mille cinq cent jeunes mille cent personne te cent personnes yi ñoo am carte électeur est-ce que ça ça sert à rien ça ça ne sert j'en tirerai kon arme bi ñu war a xeexee daal mooy carte la carte. kon xeex beeg dóorante beeg. amul solo daal kii ñun suñu leader en fait loolu euh, la ñu jàngal la loy la loyabilité la euh, comment dire la discipline total mhm. il faut ñu am ko. ci loolu la ñuy dox le fait maanaam ñuy wax ñu ngi liggéey sur le terrain di recenser maanaam euh, wax naa ko sànq plus de moins de cent maisons yoo xam dugg nañu fi ci commune bi te mhm. pareeguñ de. Mhm. pareeguñ dinañ dem ba en fait dañuy englober maanaam. toute la commune ñi fi nekk ñëpp maanaam ñu daal leen di indi asaka ñu votal Cheikh Ahmed Tidiane Thiam mu nekk maire de la commune de pigne west parce que xam nañ ne moom en fait am nañu yaakaar si moom te mënuñu ñu woon mëna mën a génne d' accord comme li ñu desee ci temps lu bari naka nga gisee cherté vie bi am Sénégal ñaari weer yi ñu ne ah loolu damay euh, xamate ji njiit soo ko ñaan njiit bu la ëpp doole soo bëgg am dara si moom da nga koy ñaan soo bëgg am dara si moom da ngeen négocier ak moom xam nga président Macky Sall moom mooy suñu njiit mhm.

da def mais soo ñëwee papa lii dañ koy defee nii du ko def. faut. kilifa la. donc madame, gars nekk si médias yi fii di de gauche à droite la vie est chère mais il faut qu'on trouve comment dire, euh, Est-ce que c'est pas lié à une conjoncture mondiale avec le coronavirus euh, Oui, euh, c'est ça. En fait, amnesty amnesty part. de mm-hmm. part des responsabilités. Mm-hmm. part des responsabilités. Mm-hmm. Mais l'État, pour tout faire, l'État, pour tout faire, waaw kon donc lépp maanaam dañ koy euh, toog waxtaan si dialogue waxtaan dialogue ñaan. Mhm. kilifa la mu wàññi ñu dund bu seer bi. d' accord c' est ça. ok ban appel solennel ngay def say partenaires ak say soppe. Euh, lu may wax rek nañu liggéey si wàllu massification. Mhm. nañu liggéey si wàllu porte à mhm. parce que appel boobu man parce que gi partisans yi wax dëgg yàlla <laughs> euh, wax dëgg yàlla mënu ma leen fay. mënu ma leen fay parce que wax naa ko léegi léegi. tey jii PM Sall si demee ba taxawal mouvement bi c'est grâce à Yatanza. kan mooy Yatanza. Yatanza moo nekk moo nekk mooy Baye Fall bee toog. moom mooy Yatanza moo toog benn zone PM nañ créé créé mouvement ñu créé mouvement yëngal mu daanu mu dugg si àll bi di liggéey di liggéey di liggéey parce que pow période boobu sama bannière sama sama rentrée politique maa ngi jëlee fii sur la bannière du président Macky Sall ma liggéey ko lu rëy bu ñu ko ma jël que pour moi ba tey jii PM Sall war dem ci localité yi. Mhm. is nga comprendre su ma demee ba dugg Cheikh Amadou Tidiane Thiam tamit c'est grâce à à Pap Fall ak Adama moy ñee toog. Mhm. ñu ci liggéey Elage bi tok toog euh, El Hadj Lam bii toog ñëw nekk euh, des conseils yi nga xam tey c' des conseils euh, euh, potentiels ci PM Sall ak ñeneen ak ñeneen ak ñom Chérif Ndiaye aussi. ak ñeneen ak ñeneen kon donc tey ñom ñoom mënuma len fay. Mhm. tey jii PM Sall su taxoon fii di xeex. ñom dañuy bàyyi seen lepp ñew taxaw di xex mhm. kon donc ñom message bu mu leen jox moy euh, nañu gëna liggéey ci walu massification mhm. nañu gëna liggéey ci walu massification mhm. mu japp mën mën man dama nan dama nan sax euh élection gagné nañ ko ba près mais il faut que manam ñu def ci manam preuve bu ndaw lu ndaw rek pour ñu dem euh, dem dem maire ba ci carton yalla est ce que mën nañ japp na bu élection yi suba yeen pare suba dama sori ci nekkoon tay 18 h 18 h kon kon kon kon ñu door gaay kon daal yéen jàpp ngeen ne boo leen demee élection ba mu 14 heures ngeen taxale ko gars yi. du am du am second tour. Hmm? du leer laa lay expliquer. te je vous parle en conscience de cause. le 23 janvier c'est le 23 janvier 2022. 2022 oui. le 24 janvier dina defaat beneen émission pour ñu remercier nos militants. di nga mën a di nga di nga PM li nga wax fa nga ko teg. Hmm. te je vous parle en connaissance de cause. foko tek nak pem lu leelal expliquer lolou mo doon pem sa amone sañ sañ day day déposer day déposer maire pikine ouest te ñi nek ñep lay danal dal jeunesse bek ñep cheikh amadou ko nama cheikh amadou président mais élection locale ñi am équipe d'accord sa cadre gu mujju euh di remercier wa pikine di remercier wa ngéñane di leen wax ne ñaar yaa ngi dal di remercier waa Fissel Mbaran li ko dalee euh, Nimaak Mbudaay Gama Baak Njeeg Baak Seek euh, ak euh, Langomaak ak Ndundur ak Mbulem aussi di leen wax tamit seen ñaar yaa ngi dal ak waa Leewna aussi. làkk leen ko séeréer. foog la <laughs> naka la koy waxee sax foog la séeréer den foog waxee ci naan woon aussi PM Sall waxee meeka Dakar te viar politique. Mm-hmm. te comme bëggoon na foog la fof tam ndamtaan uh, tik ticket uh, mairie Pikine Ouest afla felanga roog parce que o aucun pogum o kiin pogum aussi tamit sama ka permettre aussi ma mon sama mbokk yi Espagne wax len hola aki en Sénégal en PM piemsala estoy aki para trabaja cada ya. y cuando la gente ven aquí para ayudar piemsala para ganar Eh, la municipalidad aquí en Senegal es muy bien. Y un día yo quiero ir, venir a, a España, a Bilbao, para visitar las gente que aquí, allá, para trabajar junto Es muy, muy, muy, muy, es muy, muy bien aussi, también. tamit soo ma ko permettre te mën naa nuyu Washington. nuyu Hola, wax hi eh, I'm here your your friend your your PM Sal ak eh, here in Senegal to work in Kha. And uh, one day I want to come in New York to uh, read about the, the, the people in New York. We live here in Peking, but our, uh, right now we live in, in New York. Mm -hmm. I want you help us to win the, uh, the, the, the, the, the, to win Peking, mm -hmm. to working together. Okay. If God willing, inshallah. Rabbi. Okay. parce que wax naa ko léegi y a des Pikinois. nekk nekk diaspora bi. ñu ñoo ëpp. géej ñi nekk fi ñu ñu nekk Sénégal ñu ñoo ñu ñu gën a tuuti. mais Pikine waaye nekk ji ñu xam tey maanaam ñu ci des waa génn ñoo ëpp. da ñoom en di participer si développement wu Pikine. rawatina Pikine Ouest si kàttanu yàlla. ok ñu ngi lay jaajëfal. jërë ngeen euh, yi seetaan eh, ñëw nañ suñu coppaandoo émission amoon mbégte dalal PM Sall nga xam ne ne il a défié clairement le maire actuel wax na ko ñoom ak ñoom du combat aussi il a un bilan très négatif très médiocre qu'il a noté 3 sur 10. mais ci loolu je ne serai terminé sans pour autant remercier sama caméraman Ibra Fall euh, sama assistant Bour Ngalam di leen jaajëfal di leen jox dégg daje ak yeneen i leader